hadduna rus na mbaaram ma rës naa sangeem sa toj naa ngir mbër ma dem naa hadduna rëg na barke ba dem na meññat ma say naa ngir bamba dem naa hadduna wey na sopp ko wey na gedd ko jot na ngir bamba dem naa tiitaru wey naa puukare wey naa xay-xaylu wey naa ngir bamba dem naa dajale wey naa jag-jaglu wey naa taaxati wey naa ngir mbër ma dem naa xam denc wey naa xam joxe jot naa xam jëfe jot naa ngir bamba dem naa wëreelu wey naa xemeem ya na far jékki jot naa ngir bamba dem naa dox di fa wéy na mbuurant wéy na mooy yàlla wéy na ngir mbër ma dem naa bànneexu wéy naa reekekku wéy naa xaajaanu wéy naa ngir mbër ma dem naa jub xocc jot na naa jubbanti jot naa tey waaru jot na ngir mbër ma dem naa tuub moy yi jot na wut yàlla jot naa xam yitte jot naa ngir bamba dem naa fogoru jot na cawarte jot na tey yeewu jot na ngir bamba dem naa ak rëylu wéy naa torox lu jot na woyof lu jot na ngir bamba dem na ab dayo wéy na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 naa xam yitte jot na laxasu jot na soppiku jot naa daan mbër ya jot na am barke jot naa jot seex ya jot naa xarbaax ya jot naa xam lépp jot na muriitu jot naa dib dongo jot na gërëm la jot naa faj xaaja jot naa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 jébbalu jot na xam yàlla jot naa xam yilla jot naa dog ngir ma jot naa summiku jot na daw yegg jot naa rocceeku jot na nosru ya jot naa wakkiirlu jot na ak wóolu jot naa ak dëgg jot naa xam lépp jot naa dëddul ma dunyaa dawal pexeem yaa wattul yobon yaa wattu ko jot naa te fuglu